برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان nga laaj ma yow yaay kan pour tontu ci dana jafe lool ndax Euh, yàlla moom rek moo am maqaamaab taxaw naan alhamdulillahi lazi xalaqa samaawaati wal arda alhamdulillahi lazi anzala ala abdi loolu yàlla moo fa taxaw yonent sax ba ko yàlla wuutala gut foofa tax toog loo gut foofa du toog de wax naan man maay kii man maay kaa li la koy xamal mooy benn woftu nay si nañ ko ñu xebal benn waay mu war a wax mu ne ko yaa saydanaa yonent ne ko innama saydu allahu booba daf ko toogloo ko foofu keroog ba mu ko fa tooglooxee nag la ne ana saydu wala di aadama pour nag ma nekk fii naan na man maay lii man maay laa dana jafe lool lu mën a am daal man maa ngi bë maa ngi bëgg a nekk taalube Baay xaw moom la xaw ma doxuma waaye suma xol beeg suma ruuxu gi moom loolu laa bëgg a nekk su yeboo sax ma ne ca sàppe ga ca gannaaw waaye rek bu ñuy compte taalibe yi nañ ma boole loolu bëgg naa koy dox kon su ma doxee taalibe Baay nag bëgg naa ma xam gëm ci Baay ak mbëggeel ci Baay gu bànqaas gëm ñaari xaaj gëm ak cosaan kooku njëriñ li du bëri ak gëm ak bànqaas gëm ak cosaan mooy nga juddu fekk sa bay de taalibe baay sa yaay de taalibe baay yéeg nga juddu ci loolu rek commencé xabdu dem gàmmo loolu mooy gëm gëm gu jëkk googu gi gëm ak cus ca ñaareel nag mooy bu bànqaas mooy nga tërbiya xam jaar-jaari baay yi fiñ jaar ba dikk nekk Ibrahima Niass ibnu Alaaji Abdoulaye Niass waa Aïssa boobu nag mooy bànqaas bànqaas nag moo yore xob te xob mooy indi ker bànqaas moo yore meññat man nag foofu laa bëgg nekk kon daal wax dëgg yàlla sëñ bi pour ma nekk bi naan man maay kii dana jafe lool wasalaam. macha allah Cheikh Abdou Barham ah, loolu day wane wàcce boppam rek waaye ñun xam nañ ki nga doon ah, macha allah di laajaat beneen question bi mooy ci yóbbalu taalibe lañ nekk. Ah, xam nañ yitte Cheikh Abdou Barham li muy liggéey ci faydu bi macha allah yàlla na yàlla xeb dolli. ban yóbbal ngay ñaax taalibe yi taalibe niñ war a mel mbaa nan lañ war a mën a comporter woo euh, ci faydu bi maanaam doon taalibe Cheikh loolu ñetti xaaj rek la mooy xidmaal baay yaru ci kapam bépp muqaddama baay manu ci say mbokk taalibe yett yii daal ku ko xam sa maqaama garanti na yaa ko moom te dara du rob boo ci ñàkkee mi ngi saako bi bëtt nga def ci sa te dem kerak bu li nga li ci biit bu tolloo bën bën ba rek foofa laay rot soo demee ba ëgg si xool ñu gis fekk bën bën ba la jaar saako bi bu ne kek ñu koi ko boros ko bu ne kek lu yoonu bari bari pax boo wàccee boo peesee la nga amoon ngaay amaat bon taalibe bu amee yaru xam xidma xam maandu ci mbokki taalibeem lu mu lëggéey moo ko moom wasalaam masha allah cheikh abdou barham kaddu yi rafet na sell na gàtt na yàlla yàlla barkel say mbir macha allah xam nañ li ngay liggéey ci faydu bi ci pays bi yàlla yàlla yëkkati sa maqaama sa martaba sa wilaya ci barki molaan